képp koo xamante ni da nga am koy bëgganteeg sëriñ bi nag doxul ci caaxaan soo ko bëggee takk soxna la wax dina la ko noobal ba ngeen juboo seen wërsëg dëppoo waaye sëriñ bi tamit dina yëngu ci wàllu faj rawatina tawat yi nga xam ne ñoo sonnal askan wi bu ci mel ni imorid ndoxum siti ba ci niw kattan ci sunu mbokku góor yi waaye sëriñ bi tamit yàlla may na ko lool ci wàllu kayit moo xam nga nekk ci réew mi di lijjanti ay kayit mu jafe la lool soo ko woowee incha allahu na caa def saafara rawatina sunu mbokk yi nga xam ne dañoo nekk ca bitim réew am fa ay jafe-jafe ci wàllu kayit képp ku ko woo rek bu leen yàlla dëppalee incha allah di nga am saafara ci sa tawat boobee sëriñ bi nag ku bëgg a jokkoo ak moom numéro yaa ngi nii may waaj a lim muy 77 541 08 85 ma baamtu ko 77 541 08 85 beneen bi di 78. quatre cent cinquante et un soixante-quatorze numéro yooyee la ñu mën a jotee Serigne Kamal nekk Serigne Lasrar bu yàlla baaxal képp ku jokkoog moom yal na sa aajo faju ñu door xibaar yi dooree ko ci doomu Mali bi tudd Amari Traoré moom nag mooy capitaine équipe nationale bu Mali keroog bi Mali di jàkkaarloo ak codiwar d'Ivoire match boobee bi mu jeexee waa Côte d'Ivoire leen dafa songu arbitre bi nga xam ne moo doon arbitré match boobee nekk doomu Égypte lu mu ko yekkut nag da koo fàtte yekk na ko lu mel ni xeme kàddu yu ñagas yooyee mu yëkkati woon teg ko ci doomu Égypte bi nag tax na waa CAF jël ndogal ci moom bu ñu sukkandikoo ci Mickey Junior Mickey Junior nee na aj nañu ko ñeenti match yoo xam ne bu ko Mali di football moom du ca bokk waaye yemul ca loolee ndax fédération bu Mali ñoom liñ leen amande cib kaalis mi ngi toll ci dix mille euros xibaar boobu Mickey Junior moo ko le ñu jugee ci Hambry Traoré ak daan yooyee ñu teg ko moom ak fédération bu Mali dem ci équipe national bu Algérie ñoom nag seenu fédération bëgg-bëgg bi ñu am moo di teqalikoo ak Belmadi mi leen di tàggat. bu ñu sukkandikoo ci foot Algérie waa équipe nationale bu Algérie rawatina fédération bi juboo nañu ak doomu Suisse bi tudd Petkovic li ñu bëgg moo di bu ñu dàqee Belmadi mu ñëw foofee tàggat leen waaye nag am na ay sart yu ñu ko tegal maanaam wax nañu ko seen bëgg-bëgg li ñu ko xamal moo di bu ñu la xaatimalee contrat Coupe d'Afrique bi ñu war a footballee ci réewu Maroc bu ñu ca demee lu mu gàtt-gàtt fexeel ba dem ba ca demi-finale ya waaye bu ñu noppee ca Coupe afrique boobee li ñu bëgg moo di coupe du monde 2026 kenn duñu ko nettali dañoo bëgg équipe nationale bu algérie qualifié jamono ji nag daanaka juboo nañu foot algérie nee na bu ñu juboo nag liñ koy fay cib salaire weer bu nekk dina mat cent mille euro cent mille euro nag bu ñu ko calculer ci francais CFA dina takku lool ndax mi ngi toll ci soixante cinq millions franc CFA loole la ñu juboo ci kaddu ngir bu ñu juboo weer wu nekk ñu fay ko jógee ci fédération bu Algérie ak seeni bëgg-bëgg dem ca waa olympique bu Marseille ñoom nag ki leen di tàggat di Gattuso dina jógee ca club boobee ndax ànd bi mënatul wéy ndax doomu Italie bi kat doxalut ak waa olympique bu Marseille weer mi ngi nii amul ndam defet bi ñu mujj am démb lañu ko am stade brestois lañ doon jàkkaar lool mu gañe leen benn bal ci dara ñàkkuk doxalam googee nag tax na waa olympique bu marseille ànd ak pablo longoria jël ndogal li ñu bëgg moo di téqalikoo ak moom ndax dawkat kat ba ngay ami tànk te seen toogaay béggandiwul dara ci ligue 1 bu ñu sukkandikoo ci foot mercato sax daanaka wa olympique bu marseille am nañu ku ko wuutu foofee ki ko fa nara wuutu nag du kenn ku dul Jean-Louis Gasset mi nga xam ne moo doon tàggat équipe nationale d'Ivoire ci d'Afrique bii ñu génn te Côte d'Ivoire jël ko waaye moom nag jëlu ko ak waa Côte ndax dañoo door Coupe d'Afrique boobee doxalut ak waa Côte d'Ivoire loolee bokk na ci li tax ñu teel a téqalikoo ak moom indi Emerse Faé mu jël Coupe d'Afrique bi Jean-Louis Gasset moomee nag jamono ji jege na lool ngir dem foofee ci Olympique bu Marseille tàggat leen waaye moom mii di Jean-Louis Gasset nag des naa taqe lool waaye min na bu France ba mu fa mujjee tàggat ab club club bi mu doon tàggat moo di Bordeaux loolee mi ngi nekkoon ci saison deux mille vingt deux mille vingt et loole mi ngi nekkoon ci saison deux mille vingt deux mille vingt et un li mu fa jot a ci ay match nag mi ngi toll ci trente neuf fanweer ak juróom-ñeenti match am na ca treize victoire six match nul vingt défaite moom nag saison boobee bi mu jeexee mi ngi ko jeexalee woon ci douzième place bi maanaam fukk ak ñaareelu place ba jege na lool nag ngir tàggat olympique bu Marseille maa ngi leen di xaar ci commentaire yi tànneefu olympique bu marseille boobee rawatina njiitu club boobe nu ngeen ko gisee. ñu jugee ci waa olympique bu marseille ak seeni bëgg-bëgg dem ca waa liverpool ñoom nag bërki démb bi ñuy jongante ak brentford match boobee dañu ko jeexal ak ñaari blessure kenn ki mi ngi tudd jogo jota doomu portugal la. moom dina toog ñaari weer door a dugg ci terrain football loole record bu Portugal moo ko le keneen ki doomu Angleterre la mi ngi tudd Curtis Jones moom nag bu ñu sukkandikoo ci mill Sport def nañu ay scanner ci moom maanaam saytu nañu blessure am boobee waaye xabaar yi génnagul xabaar yooyee bu génnee dinañ leen ko toppal waaye bu dee jogo jota moom record bu Portugal nee na lu mu gàtt gàtt dina toog ñaari weer door a dugg ci terrain football. ñu jugee ci waa Liverpool. Liverpool ak seeni xibaar yu naqari dem ca waa Manchester City ñoom tamit seen gone gi nekk doomu Angleterre keroog bi ñuy jàkkaarloo ak Copenhague mu soxaloon Ligue des Champions yeggali wut match boobee li ko waraloon moo di ab blessure mi ngi tudd Jack Grealish ki wax ci blessure boobee nag moo di Pep garjola nee na musculaire la am te lu mu gàtt-gàtt dina toog dix jours maanaam fukki fan door a dugg ci terrain football kon xibaar boobu nag neexul ci waa Manchester City Pep Guardiola moo dëggal ni dina toog fukki fan door dugg ci terrain football. ñu jugee ci Jack Grealish ak xibaaram bu naqari jël doomu Allemagne bi tudd Antonio Rudiger di football ci Real de Madrid moom nag jamono jii dafa am ab blessure waaye AS yéenekaay nee na mi ngi yëg tan bu baax bu Real de Madrid di jàkkaarloo ak Séville mën naa am mu bokk ca match boobee doxal bu dara soppeekuwul ci diggante bi dina ci mën a bokk doxal ndax jamono jii mi ngi yëg tan bu baax muy Antonio Rudiger. ñu jugee ci Antonio Rudiger ak xibaaram bu naqari waaye Real de Madrid duñ leen bàyyeegum tey jii nag Marca kay nekk ca Madrid googee dafa génne ab xabaar di xam xamle ne Kylian Mbappé signé na contrat ci Real de Madrid waaye loolee nag Marca képp moo ko wax bi ko marka waxee ba noppi nag surnal yi gën a mag nekk ca France dañu ko weddi dëggal nañu ne nag juboo daanaka am na waaye signé guñu contrat bi Marca moo xamle ne signé nañu contrat bi waaye France moom journal ya fa nekk ak journaliste ya fa nekk dañ ko weddeegum signé nañu ko ak signé wuñu ko moom li wérte wóor moo di Kylian Mbappé waa Real de Madrid ñoo ngi koy sax ñëw na ci contrat bi mu fa nar a xaatim Marca nee na su fekkee ñëw na foofee contrat wu juróomi at la ñu koy xaatimal salaire bi muy fayeeku dina mat quinze jàpp vingt millions d'euros waaye laata loolu lépp nag prime de signature dina am maanaam bu signé ñu neexal ko neexal googee waa Real de Madrid bëgg a jox Kylian Mbappé mi ngi toll ci cinquante millions d'euros waaye jamono ji moom bu ñu sukkandikoo ci journal ye nekk ca France Mbappé signéegul contrat bi waaye marka nee na signé na ko signé na ko am signé wu ko loole ci sunu kanam la nekk King Ouse Ngary TV dina leen ko toppal